nañoo lëngoo ba élection législative bëgg nañoo lëngoo ba élection présidentielle yéen a kaay gi du l'observateur nee na en tout cas li am ba des daal charte coalition bi fukki point la yéen a kaay gi nee na élection yi ak élection législative yi ak élection présidentielle yi waaye nag ci biir yi nee na xam ne yaa ngi ci biir bi doo ŋàññi coalition bi ak ŋàññante du am liste parallèle tamit du te du am benn waxtaan boo xam ne maanaam yow mi bokk ci coalition bi danga ko waxtaan ak nguur ki maanaam doo jege Macky Sall ko jege xibaar naan ni Bougane Gueye Dany ci coalition wala bokk waaye nag ni ki démb dafa mujj sax gedd li nga xam ne mooy ndaje mi ndax nee na comprendre li nga xam ne maanaam mooy couleur coalition bi ak tur wi ndax nee na tur wi amul benn waxtaan boo xam ne ñi séq coalition bi waxtaan nañu si ba déggoo ci kaw yi kàddu ngir nag ñu mën a taxawal coalition bi tuddee ko aw tur Bougane Gueye Dany tamit daan nay signé charte coalition bi waaye nag daan nay wax ci li nga xam ne mooy couleur Yewwi Askan Wi ndax nee na couleur yi daal couleur parti Pastef ci boppam lay niroo la ak couleur coalition taxawu sa Sénégal bu Khalifa Sall ak nag parti bu Serigne Moustapha Sy Bougane Gueye Dany nee nag loole nag il faut a kaay gii di Vox Populi na en tout cas li ambade Sall mooy askan wi mooy coalition bi nga xam ne moo fas yéene nag jàkkaarloo ak benn bokk yaakaar bu Macky Sall ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen a kaay gi nee na en tout cas daal ni ki démb daal mbir ma pëccxoo woon na lool lool lool pëccxoo woon na lool gars yi ñëw leader yi ànd ak seeni militant mbir mi kenn xamul lan lay niro saal bi mujj tàng ba maara day taali leader yi seen masque yi sax dañ koo tekki ak coronavirus bi maanaam ñaq ba tooy xepp yéen a gi nee na sorewut ak li nga xam ne mooy ab meeting électoral yéen a gi du l'observateur ñu fekk fa Barthélémy Dias nee na en li am ba de sàll nañu nag jublu ci l'essentiel bi l'essentiel bi c'est le waaye nag nekk fii di def ay calcul politique loolee amul benn njëriñ yéen a gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Moussa Diaw analyste politique moom nag li mu gis daal coalition Benno Bokk Yaakaar yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na waa PDS ñoom ana fan la ñu fare ci coalition Yewwi Askan Wi Assane Samb xëy jël xalimaam nee na toujours hors jeu PDS maanaam PDS daal maanaam kenn mënu leen a comprendre tey ñu mel nii suba ñu mel na le clair obscur waa PDS léeg-léeg ñu tëni daal ay discours yoo xam ne day radical ba maara détaillé léeg-léeg nag PDS na patta pataaral silence rajo maanaam kenn du leen dégg gars yi wax sax ne ñoo ngay juboo jéeg Macky Sall PDS daal la kenn mënul comprendre yéenekaay gi nee na mbaadu nag mafia bi Macky Sall doon wax ca diwaanu Thiès maanaam Karim Wade la Assane Samb nee na nag ab dil ku ñu ko dee diggante Macky Sall ak ki nga xam ne maanaam nag mooy PDS ndax PDS lépp loo xam ne lu arrangé état bi loolu rek la PDS nekk ci réew mi di yéen a kaay gii di Vox Populi nee na coalition jot na ak CRD ñoom Abdoul Mbaye ñoom nag ànduñu benn yoon ci coalition Yewwi Askan Wi ndax nee nañu gisuñu si ab transparence beneen bi amul débat ñoom nag duñu ay xar yoo xam ne dañuy jékki-jékki rek gurgur leen maanaam dugal leen ci ab coalition dañ see war a waxtaan ak ñooma ñu joxe ci seen xalaat maanaam àndub nawle te ñoom nee nañu loolee gisuñu ko benn yoona yéene kaay gi di Le Quotidien xëy dañu xibara naan ñu APR ca diwaanu Parcelles Assainies ñoom nag nee nañu Amadou Ba mooy seen candidat ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu tëg ma la yéene kaay gi di réew mi Quotidien xëy dañu xibara naan ñu dund gu cher gi nga xam ne moo nekk ci réew mi tax na état bu Sénégal daat nay bàyyi lu toll ci 47 milliards ci ay recettes ngir nag bañ dund gi cher bi daal di jéggi dayoo ministre bi ñu dénk wàllu finance nee ma Abdoulaye Daouda Diallo ni ki démb nag moo ko xamle ci ab conférence de presse moom Abdoulaye Daouda Diallo nee na dund gu cher gi ci adduna bi yëpp la ndax waayu adduna bi la yéen kaay gi di l'info nee na état bu Sénégal dina ñàkk lu toll ci quarante sept milliards yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na bu ngeen gisee nag état bu Sénégal di perte quarante dafa am loo xam ne moom la état bi ragal dafa am lu état bi daw maanaam ay émeute askan wi wàcc si mbedd mi ngiru xiif loole la état bu Sénégal di daw loole nag moo tax état bi nangoo ñàkk lu toll ci quarante sept milliards dara yéene kaay gi xëy dañu xibaar naan ñu askan wi nga xam na ñoo yeewoo géejawaay ñoom nag mer nañu lool lool mer nañu ba maara day taale ndax nag nee nañu dund gi daal cher na dund gi cher na nee nañu nag dimanche bi nga xam ne moom la ñu dëgmal danañu wàcc ci mbedd mi ndax trop c'est trop yéene kaay gi di wal fajri nee na état bu Sénégal ginnaaw bi mu supprimer yenn ci ay taxe Abdoulaye Daouda Diallo nee na nag commerçant yi nag il faut ngeen nekk en règle ak fisc bi yéene kaay gi di Dakar Times nee na Macky Sall neexul ba neexul waaye dugal na Sénégal ci ak guuta ci ak musiba ma ba kumba ci ak tooxi doona inondation yaa ngi nii mel ni tulleeg màlle mel ni état bu Sénégal daf ci tëlee njëg yaa ngi nii yokk ba maara de taali askan wi sonn ndaw ñi mer ba maara de taali yéen a gi nee na amul benn suivi boo xam ne am na ci évaluation politique publique bi dossier yu bare bari doxul chantier yu bare bari doxul projet yi doxul Macky Sall jamono ji dafa tagga tembe yéen a kaay gi nee na bu ñu waxantee dëgg gouvernement bu Macky Sall bi amul benn efficacité paasuñu puusuñu maanaam demul ceng dikkul mbay